ci wàllu demi-finale bi ba tey Sénégal ceinture rouge Ñaax Burkina Faso ceinture bleue arbitre bi sifflé na Sénégal am na benn ndam ci premier combat bi wala ci première jongante bi ñu ngi demaat ci deuxième jongante bi Ngor Ñaax Sénégal ceinture rouge Burkina Faso bleu ñu ngi noonu ñu ngay lewaatoo dara xewagul jàpp na ko ngóor ñaax Sénégal génn nañ saako yi kaay leen waat kaay leen ndeysaan kaay leen arbitre baa ngi noonu di waaj a waat laaj na joueur pare nañ arbitre bi sifflé na ndeysaan Sénégal Burkina Faso Sénégal ceinture rouge war la ginnaaw Burkina ceinture bleu ndaysaan ñu ngi noonu Ngor Ñaax moo ci nekk noonu mooy deuxième combat bi ci wàllu 76 kilos daw na jëli ko mu bañ ndaysaan gaañu na walla déet gaañu na déet ndaysaan suñu mbokk burkinabé bi dafa gaañu ci épaule. arbitre baa ngi leen woowaat na ñaari ndaanaan yi sifflé waat na Sénégal Burkina Faso senegal ceinture rouge Burkina bleu ndaysaan ñu ngi noonu ci wàllu 76 kilos bi ndaysaan Burkina ak Sénégal ndaysaan Burkina Sénégal Sénégal ngóor ñaax ndaanaan ndaysaan mi ngi noonu Sénégal ndaysaan ak Burkina Faso ngóor ma ngi mu ngi ko bëgg a jàpp ndaysaan ngóor a ngi ko bëgg a jàpp Sénégal Burkina Sénégal Burkina jël na tànk bi Ngor jël na tànk ba Ngor jël na tànk ba ñu ngi koy waaj a mbot bañ na da ciy génnante wër na ko ndomba Ngor ñaax wër na Sénégal Sénégal yanu na ko ba ci kaw dóor ci suuf teraanga lii lañu ñu xam teraanga làmb moom yanu ba ci kaw dóor ci suuf rek lii daal mooy teraanga allez les lions du Sénégal <laughs> réewu teranga la yëkkati nañ sa loxo dinañ la may nga lekk may la nga naan bu arbitre prime ñu yenn ba ci kaw dóor ci suuf